après Touba Belel Madiana 1 ba 6 soxna maam say Mbàkke ñëwaat na fi nga xamante ni mooy xayra 2 amal fi nag financement bu am solo bole koog massification si wàllu politique ndaxte décroché na responsable politique bu bokkoon parti démocratique sénégalais doon jàppale Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly président du groupe parlementaire liberté et démocratie kookee di wuyoo si taalaka ñoom nag li waral ñu ñëw ànd ak soxna si ngir jàppale ko si wàllu politique bokk na si suñu sukkandikoo si ñoom nekkat moo leen faale ak tamit acte yi muy def si biir dëkk bi ngir talal loxo population bi loolu moo leen convaincre moo tax ñu ñëw tey ànd ak moom ngir liggéey. di leen xamal ni ñun teew gi ñu teew fii tey soxna maam say seet dañoo nekkan ci PDS ànd ak moom di liggéey ak moom. ci ginnaaw Cheikh Mbacke Bara Doli ñu fas yéene nag bàyyi loolu lépp ndax dañu daan def utiliser bu ñu soxlaa jël ñu def nu yatu xeexukaay bu seeni soxla matee ñu fànni fàtte ñu dañoo ñëw fas yéene def ànd ak maam say ci liggéey bii muy liggéey ñu jàppale ko ndax gis nañu ni njariñ a ngi ci ndax fi mu jaar man topp naa tànkam foo mu jógee ci tubaab belal ba madiana 1 ba madiana 6 ba 7 gis naa lim fi liggéey lépp ñu fas yéene ñëw nag jàpp comme moo nekk ci ginnaaw président ki fi nekk di Macky Sall ñu fas yéene ñëw jàppale ko ci liggéey bii nekk ci nag ñun moom say mi nag ñun moom lañ moom lañ def mooy suñu président. nga jógee ci kujj gi ñëw fas yéene ànd ak sama maam say mi jàppale ko ci liggéey bi muy liggéeyal président Macky Sall. man maa ngi nekkoon ci Madické Niang. si yéene koo jàppale nag ak sama gàngoor sama ginnaaw ak sama gàngoor te mun mënagu koo xam. waaw jaan tuuti na lool waaye ah am naa ci yaakaar ndax jaan dafa tuuti tax ma taamu ko firnde ji mu wane ma am ku dox jéego ba ba ci seen biir ñëw ba ci man expliqué ma te mu doy ma lool moo tax te ma daan ànd ci ñoo xamante ni mbubu xaartuma ñaar téeméer lañ ma daan utiliser maag sama gàngoor te loolu amatuluñ njëriñ waaw looloo tax ma bëgg a ànd ak soxna maam say ba géej gi des wala rek ñu bokk naa mu ñëw sama kër fekk waxtaan ak man dafa ñoo jàppale ñu ñu ànd liggéey président financement yi ñuy amal ñu si bari bénéficié woon nañ si ñoom nag fas yéene nañu liggéey fay waaye tamit gis nañu ni ndimbal gu nu mel képp koo xamante ni yaa ngi yëngu si politique si dëkk bi di Touba kenn war la saa jiitu def ni soxna maam say mbàkk yi guddi xolli nañ gerte jaay nañ laax lu ne def nañ ko mënuñoo fexe ba am ku ñu ci jàppale ku ñu puus ñu tàkk tey nag mu am ku mu yaakaar boole ñoo moom moo ñu fi ah financement bi daal man xam naa ko ndaxte sama yaay da ciy dox dem naa versel ko crédit mutuel du benn du ñaar crédit mutuel moom sama crédit mutuel la baax na wóor na assuré na soxna maam say mi ko indi fii ah duma ko wax dara bu dul jaajëfal ko bëgg jigéen ñi avancé waaw avancement jigéen yee ko tax a jóg jigéen ñi dañoo sonn fii da ngay xolli gerte xoolal fukki kilo gerte nga xolli ko ci 300 francs ñaari fan nga am crédit mutuel di la financer te ñu lay financer seen pour pourcentage bëriwut ñu laaj la weer wu ne boo doon denc journée téeméer mun nga koo fay mun ngaa fay crédit mutuel te au fur et ngay fay ñu lay gën a yokkal. alors dañu ci doolee santaat yàlla bu baax ndax euh, réew mi fi mu toll boo xoolee moom li mu def nii. lu ñuy doolee rafetlu lay doon ndax jamono ji metti na lool dem na ba fi ne nii boroom kër yee ngi xalaat ay tabaski di xalaat lu ñu war a yóbbu seen njaboot kon bu soxna si indee lu mel nii tey lu mu bon bon bon boo ko jëlee nga mën koo dugal ci xar yi wala nga dugal ko ci beneen business yàlla mën na laa suturaal bu tabaski ñëwee nga am loo yóbbu sa njaboot loolu rek dafa doy jaamu yàlla. soxna Mame Saye Mbacké moom nag gis na ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy way politique yi dañoo war a faale seen ay rawat na ko kujje gi nga xamante ni ñoom kat ñoom la waa Touba wóolu woon naka noonee sax junj na benn député bu fi nekkoon jàpp na ni kat moo diggee woon salaire am te defu si lenn gis gis ni kat jii bu lu nu mel bu amee loolu bokk na si ndax population bi dañoo xàddi boole si nag wax ak population bi ngir ñu mën a bàyyi xel njiitu réew mi si lii muy amal si biir Touba di ay naal yu am solo soññi tamit ñi nga xamante ni ñoom la bokkal parti politique ngir ñu mën a consacrer seen activité si lu am njariñ te nag wàññi coow lii. am na am anam ban ko falee ba léegi anam ma nga ko mbas mi ñëw Touba ñëpp jóg ñu fënd ay masque ñu ay sel ñu de ay ay dund di jàppale nit ñi kenn gis ko dégg ko ma bëgg wax ne waa population Touba na xëpp seen i bët ak département xool baax ñun ñuy jàppale ñun ñun ñun ñun ñun ñun hôtel ndax hôtel nit xëy gisatoo ko déggatoo ko boo soxla itis bu noppee sànni la loo amul benn tey jii nag ma jóg jàppale jigéen ñi ndax damaa sonn ci lu ba xatuma ñaar téeméer bu mu def département de Mbacké ndax euh, danoo waxoon ne président Macky Sall jàppalu kenn tey ji bi mettee waa kër mi ngi suñu taxaw ay waa kër mi ñoo taxaw tey yi ci mbas mi di leen ndax fii jëf fii réew tool toll ku la jàppale bu rek bu jàll jël nga koy soxlaati te président Macky Sall li wax ne tubaab bi ko ñu ngi fee def centre bu mag hôpital mobile foo séeni ay milliards pour mbas mi 30 boo xam ne da koy tëddi mi ngi nii def na ko ilaa yi mën ngaa xëyee Touba njëkkee ji Dakar hôpital mag bi moo ne ci yenn yenn yu bari yoo xam ne nii jar na jàppale ko may wax sama mbokk tamit ne seet ak dund bi nga xam ne président indi na ko ci département Mbacké dund bu doy sëkk diw saabu ceeb ba kenn ko ne gis na sa bopp boo tamit bourse familiale yi mu yokkaat ko ba néew doole gis seen bopp ma bëgg nag sama mbokk yi ma bokkal parti bi ñëpp ñu wàññi groupe WhatsApp yi te taxaw génn ci askan wi waxtaan askan xool seen jafe-jafe ñu jàppale leen dafa boole politique ak développement moom soxna maam say Mbàkke ni nag li ko itteel mooy élection yi di ñëw di local yi parti bi di APR am taxawaay gu mat sëkk ci département de Mbàkke yi